àlleenu seeni nopp ma xibaar leen di si yéenekaay yi quotidien national bi lañu koy dooree le soleil di ñu xibaar ni lu soxal campagne agricole bu ren bi budget bi jóge na ci 100 milliards ba ci 120 milliards Ousmane Sonko di njiital jëwrin yi ci yéenekaay bi ne lépp lu ñu war a daal di def ci mbay moomule ci baykat yi la jëm directement teg ci nag bor bi nga xam ni moom la état bi yoreel opérateur yi te mu soxal campagne agricole 2021 2022 jàpp 2023 daañu ko fay gën gaa yéex fukki fan ci weeru mai 2024 bii ñu ne euh, teg ci nag euh, way takk der yi ñoom ñooy séddale jiwu gi te nag duñu amal daañu amal audit programme bi nga xam ni mooy séddale matériel yi euh, ba tax direct news ne Ousmane Sonko jëmal na rupture bi ci lu soxal mbay mi dooree ko ci euh, bor bi nga xam ni moom la état yoreel opérateur yi séddaleem jiwu gi ba ci financement campagne agricole bi suuf su a moom ci diggante état bu Sénégal ak FMI la xëy tey yéenekaay bi di ñu xibaar ni kilifa yu bees yi feddali nañu seen engagement ngir nag wéyal programme bi fi nekkoon di plan Sénégal émergent te FMI jàppale ko ndax nee nañu litiyee programme bi yëpp euh, méngoo na ak li nga xam ni moom mooy seen ay objectif te mooy améliorer la résilience budgétaire wàññi bor bi gën a dooleel gouvernance bi waaye nag gën a jëmmal transformation structurelle de l'économie les échos di ko dëggal ndax yéenekaay bi nee na Diomaye ak Sonko PSE lañuy woyal wëyal si lu soxal mission waa FMI fii ci Sénégal mi ñoom li ñuy sàkku rek mooy ñu daal di soppi wala ñu wàññi griffe tarifaire courant bi def ko tarif bu yomb ngir nag ñu mën mu mën a jàppandi ci kër yi nga xam ni seen doole demewul noonu antenne quotidien dolli ci ni waa FMI xayma nañu ni croissance économique bu Sénégal dina àgg ba ci 7,1 pour cent ci 2024 ba tax FMI ne koom-koomu Sénégal wane na ni am na doole rawatina si jamono yu metti yi nga xam ni ci la nekkoon ba tax la quotidien ne état bi day dem ba jeex ak waa FMI ndax day wéyal programme 2023 2026 yéenekaay bi ne 320 milliards la fi Macky Sall bàyyi ngir réserve FMI ne taux de croissance bi 7,1 pour cent la Sénégal di am ci atub ren bi ba noppi nag mu digal kilifa yi ngir ñu wàññi njëgal courant bi révélation ne kon bu ñu sukkandikoo ci FMI gouvernement bu Amadou Ba amal nañu liggéey bu am solo ci atub 2023 bi waaye bu ñu sukkandikoo ci la Dakar waa quotidien pression bu mag a mag la joomaay ak Sonko nekkee jamono ji ndax vingt milliards yi nga xam ni moom la ñu génnee ci fonds politique fii ci Sénégal nag fësal na rapport gannaaw bi nga xamee ni def na ab enquête ci secteur foncier bu Sénégal Dakar Times moom ko xamal ma xamal leen ko yéenekaay bi ne bi rapport bi noppee li mu wane rek mooy corruption bi am ci secteur foncier foncier bi yépp ci administration bi la jógee maanaam agent yafa fa ñoo nekk ci wàll yépp ba tax na bénéficiaires yi responsabilité ci manquement yi nga xam ni moom la fonctionnaire yi di def la xew ca ANAT di agent national di agence nationale de l'aménagement du tourisme la libération xëyee tey euh, doy na war trop ndax yéene kaay bi nee na agent comptable ba fa 33 chèques la daal di jël euh, ba tax cour des comptes di sàkku rekk ngir ñu delloo lépp lu ñu fa mas a luubal mbëkk mi moo ngi woy ba tey di am ci réewum Sénégal l'évidence moo ngi ñuy si xibaar ni lu toll si téeméer ak fukk ak juróomi doomu aadama yoo xam ne dañu doon mbëkk ji la waa duwaan daal di teg loxo ci booba jamono turbine moo ngi ñuy xibaar ni président Bassirou Diomaye Faye feddali na engagement wam ngir jàppale diine gi ak aada ci réew mi ci daaka Medina Gunaas bi ndax moo nga Medina Gunaas ngir teewee daaka bi Eumeu seen ak Sa suba ci dibeer bi la ñuy daal di bëree ba tax l'observateur ne Sa dugg na ci seen de crime bu Balla Gaye 2 fi la ñu nar keppeli ci yéenekaay yi ma dem leen seeni nopp ba ëllëg ak jàmm ci Nasirou TV jërë ngeen jëf